asalaamaaleykum mbokki ginnaaw raay noore maa ngi nuyu képp ku fi yeewoo ci turam ak santam maa ngi tudd Mouhamed ngi nekk agent municipal au niveau de la mairie de ginnaaw raay nord di exercer sama métier agent municipal ci centre commercial ba comme secrétaire fii pour indil leen ay reeral maanaam ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey centre commercial ba boobu ak léegi am nañ fa 6 mois 6 mois yooyu def nañ fa ay liggéey yu am solo di ñëw di présenter équipe bi nga xamante ni ñoom la ñu àndal tey jii nii ñu toog fii ngeen ñoom la ngeen gis nii ñoom ñu nekk ay agent municipal di exercer au niveau du centre commercial ku su mel ni Saabali nekk bokk si commission marketing et commercial si centre commercial bi ku su mel ni Cheikh Omar Meng nekk régisseur centre commercial bi ku su mel ni Cheikh Mbacké Niang bokk tamit agent marketing et commercial si centre commercial bi ku su mel ni Pape Amadou Sall nekk surveillant général bi ku su mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye bokk ci agent de recouvrement ku fi melni mam Cheikh Ibrahima Fall gay nek adjoint régisseur ak Lamine Ñing bokk ci agent de recouvrement ak suñu collègue IFTO mi nga xamanteni mo fi tew tay bon lu war a bi ndax derniers jours yi dañoo gis au niveau de Guinaw ray Nord ay problème yi nga xamni dafa jëm ci centre commercial bi maanaam ay wax yu négatif ay commentaires yu négatif en tant que ndaw nek ci centre commercial bi nga xamante ne ñun ba ñëwee ba léegi ñu ngi def ay liggéey yi am solo ñu ne nag dañuy ñëw tey pour présenter waa Guinaw noor benn rapport général rapport général bi maanaam rapport général bi demee mooy rapport Tourvé rapport Tourvé bi mooy lan lu ñu fekk ci biir centre commercial ba ñu fa ñëwee installé wu le premier jour ba dina am ay documents yu ko accompagner yi nga xamante ne dañ ko faa découverte aussi dina am rapport actuel mooy fu centre commercial bi egg en ce moment là ba ñuy wax ak yow fu commercial bi toll tamit dina am ay documents yu ko accompagner di ñëw si réorientation ak explication bi nga xamante ni waa ginnaaw raay noor war nañ leen ko expliquer xamal leen ko si biir centre commercial bi ak lu ñu war a xam loolu moo waroon tey suñu teewaay fii nii di ñëw di jox parole bi Demba Saabali mu def entrée si partie bu ñu naan rapport trouvé. waaw salaamaaleykum waa ginnaaw raay rawatina waa ginnaaw raay noor tey jii nag jeunesse bu ginnaaw raay ñoom ñoo wàcc sur terrain pour wax ak askanu ginnaaw raay noor. parce que fani ñu génn dégg nañ coow lu bari loo xamante boo xamante ni mu ngi daw ci gestion bu centre commercial bi ah gis nañ nag ki nga xamante ni moo ñu jiite ci centre commercial ba ñu ko naan DG muy wuyoo ci turu Birara yi moom nag génn na def benn sortie di leeral euh, li nga xamante ni moom lañ doon wax ci centre commercial bi maanaam 800000 lay versé au niveau du trésor jàpp ba 1 1 million jàpp 1 million 500 moom nag génn na def ay leeralam waaye nag am na loo xamante ni wax nañ ko ci centre commercial bi mais ñun ba ñuy ñëw euh, mois de mars février la ñuy yegg ci centre commercial bi mais bañ fa ñëwee am na lu ñu fa fekk. lu ñu fa fekk nag moom la ñuy wax askanu ginnaaw raay ndax ñu xamal ñu xam ko dès maintenant balaa demee léegi ci rapport boobu dama si dama si dama si ñëw parce que gis nañ ni centre commercial bi du moomeelu kenn nit moomeelu askan wi la képp koo xamante ni ndaw nga euh, am li nga xamante ni mooy kayitu juddu biir ginnaaw raay noor yow jàppal ni. centre commercial bi si nga bokk kon lépp loo xamante ni dafay dox si centre commercial bi ngay ndaw dëkk ginnaaw raay war nga ko xam kon nag ñun ñi nga xamante ni ñun la maire jël teg ñu si centre commercial bi war nañoo leeral askan bi na la centre commercial bi di doxee si loolu nag dañuy ñëw si li nga xamante ni mooy cantine yi am si centre commercial bi centre commercial bi mu ngi am 392 cantines 392 si 392 cantines yooyu moom sax la Bira moi DG directeur général du centre commercial bi déclaré si li nga xamante ni si 392 cantines dañoo gis 71 cantines sont des places attributaires Maintenant, dañ ko jox si ñi nga xamante ni dañ leen ko jaay ñoom du nous fay si commune bi ñooñu dañuy jaay lu ñu dañuy dugal seen poche mais nous ñu yëkkati seen dem fay si commune bi déclaration Bira ba léegi 321 places moom mooy versé si commune bi nous ñoom ñooy fay 321 places de koo répartir comme suite Nous avons 71 75 places cantine Nous avons 15 000 francs 000 francs par mois 255 places cantine avons fait 20 000 francs 000 francs si Marseille. Nous avons les plus lépp lu d'Afrique à chaque fois dañuy sóoraale li nga xamanteni moy commune bi parce que ñu ngi verser ci commune bi entre 75 euh, places ak 255 places nous boko fait da fay doon 330 places kon dans les normes 330 places cantine nous ñoo wara fay ci commune bi mais nag DG dafa déclaré ni 2 321 places Nous ñoy fay té nak amna 9 places yo xamanteni fait. fay des ba parce que avons fait 95 fait 15 000 francs ne 255 ñom ñoy fay 20 000 francs loolu noonu boo ko bu faites la calcul vous aurez 330 euh, cantines yo xamanteni dañuy fay ci centre euh, ci 75 ak 255 bu ko calculer vous aurez 330 au lieu de 321 cantines kon 330 dans les normes ñom ñoo wara fay ci li nga xamanteni ñoy ñooy ci keesu commune bi loolu buñ ko buñ fa jugee dañuy wax ci euh, li nga xamanteni moy ci si si si si rapport trouvé li nga xamanteni mom moom lañ fekk ci centre commercial bi parce que bo xolé fekk nañ centre commercial bi 321 places 321 places si 321 qui cantine yooyu ñun def nañ suñu kéemtalaay kàttan ba gis ni amna 10 cantine yo xamanteni ni defuñu ko si registre centre commercial bi 10 def nañ suñu kéemtalaay kàttan si si si suñu ba def ko rapport yaa ni ay preuve la yo xamanteni ci bir centre commercial bi lañ ko fekk nga bi buñ fa joggé ni premier rapport baay ni discantine yaay ni discantine ngi nii yi mooy mooy place yi nga xamanteni dafa ñu ko si centre commercial bi bu fa joggé nak dañuy lim cantine parce que bëggu ñoo wax jor le rapport te ñu numéro cantine bo bu ngeen démé ci centre commercial di ngeen gis MA A38 dan won fay te nekkul won aussi si centre commercial bobu ndaw yi nga xamanteni ni ñoo nekk centre commercial récupéré nañ ko bu ngeen eggee aussi di ngeen gis MA A39 boobu aussi am na ñu ko yoroon cantine yi may lim nii ñi ko yor ñi nga xamante ni ñoo ko yoroon te seen seen i euh, si registre bi nekkul nekkul si bi ñi ko yoroon ñenn ñi ay conseil municipal ñenn ñi ay adjoint la ñenn ñi ay administrateur yoo xamante ni ñu ngi foofu si centre commercial bi ñoom maanaam am na ñoo xamante ni récupéré wuñu cantine bi di si jaay mais dañ koo souloué si suulee vous vous, fay duñu dem ci direction bi dem mais non non dañ leen di jox ñom ñu def seen faire. nous xamul fa lañ ko bu ni bu ni bu ni ma leen dañ li attributaires attributaire dotul 71 81 attributaires té 81 attributaires pour man nekk centre commercial parce que ñi nga xamanteni ni ñoo ñoo amee impact ñi impacté centre commercial bi ñun ginaaw raay lañ dëkk fi lañ juddoo màggee fi yaroo fi ñi nekkoon centre commercial boobu matul sax 30 euh, bénéficiaires ñi ñi impact ñi centre commercial impact matul 30 bénéficiaires te dañoo gis 71 ma àggali MA 12 bu ngeen demee centre commercial bi di ngeen ko fa gis récupéré nañ ko bu ngeen eggee fi nga xamante ni mooy gare routière bi mu lu ñaan GR A10 Nico ko centre commercial lañu Boko, récupéré nañ NMA 73 récupéré nañ NMC 38 récupéré nañ ko MAB 2 récupéré nañ ko a 46 récupéré nañ ko MNC 52 récupéré nañ ko NMB 30 récupère nañ ko documents y 10 documents Il y, aussi euh, dañuy ñëwaat si li nga

90 cantine cantines fonctionnelles Moi fa di dox cantines fa qu'on di dox cantines ana kii waaw centre commercial Nous, des noonu maire yooyu di jaay foofu ay des ay nombre des yi 147 étals maanaam ñooñu di jaay foofu jën ak taabal ak yooyu noonu. waaw suñu yaay yi fu ñuy jaayee. waaw te te état li nag lu ma si jaaxal maire boo laaj dafa dafa naan état lim da ko jënd kenn luyewu ko de dañ ko jënd ñu ne ñaata ngeen ko jëndee ñu ne cinquante mille kon si vous faites la calcul cent quarante sept étals multiplier par cinquante mille xam nga ne loolu xaalis la te loolu kenn daanu ko woon versé trésor public. te lu si ëpp nag amul quittance quittance bu trésor public loolu tamit aussi nemmeeku nañ ko ginnaaw euh, ginnaaw ba ñu demee foofee si centre commercial ba léegi nag dañuy ñëw si li nga xamante ni mooy benn magasin gis nañ ko fa aussi mais boobu ay dépôt matériel la euh, la la la defoon waaw waaw loolu li mel poste xaw ma poste lañ koy woowee xaw poste courant waaw que courant bu ngeen xoolee si ginnaaw centre commercial bi euh, mi ngi woon foofu. après 71 attributaires faut que nous aussi euh, jarul jarul ñu si ñu si ñu si ñëwaat parce que attributaire attributaires ngi là. gis ngeen bu ngeen xoolee moo nekk nii 71 attributaires. Wow, mais nak, waaw bu ngeen 66 71 66 attributaires. la ñu la la ñu gis léegi nag am na lu ñu dégg loo xamante ni nag du yoon sax ñun ñuy toog fii di ko wax waaw ah, loolu peut-être euh, lu ñu naan euh, communication interne lay lay lay lañ ko nar a def boo xoolee moitié kii 71 kii euh, cantines yi seen seen paiement ku ñu ko doon jox ñun xam nañ ko waaw ba léegi ñun xam nañ ko mais loolu aussi du nekk nekk waaw ku si bëgg lu leer nag boo ñëwee mën nañ la ko war mais nag du doon loo xamante ni dañ koy communiquer publiquement waye aussi mu bi nga xamanteni bu muccu ayib bu ndaw ñu yóbbu centre commercial bi def parce que gis nañ ni régime bi fi nekkoon daan woon fayeeku lu ñu naan OVP OVP boo ko déggee maanaam mooy comme li ñuy wax juuti juuti manam place bu nekk da ngay fay juuti 100 francs marché mo mënoo see nekk té do fay juuti c'est impossible bép marché bu mën da ngay fay juuti daf nañ suñu kéemtalaay katan wax ak ak commerçant yi waaw wax ak waaw wax ak ak commerçant yi si 71 attributaires laay wax dé 71 attributaire yi. parce que daan yoon fay juuti daanuñu woon fay aussi li nga xamante ni euh, mooy seen euh, seen paiement si pour pour pour mairie bi daal wax nañu ñoom waxtaan ak ñoom si njëkk ak teraanga ba ñu commencé fay li nga xamante ni mooy attributaire waaw. léegi bu fa jógee aussi dañuy leeral li nga xamante ni mooy dette électricité maanaam courant bi nga xamante ni bàyyi nañ ko fa comme bor boo xoolee courant bàyyi nii xam naa ni aussi dafa leerul mais aussi ku si bëgg leer rek di nga ñëw aussi ñu won la ko.

mi ngi nii ay tur la nag yoo xamante ni dañoo dañoo bind seen tur enregistré ko si si reçu bi ne dañoo fay li nga xamante ni mooy courant mi ngi nii. mi ngi nii mun naa leen indil mais du ma leen woon wax tur mi ngi nii mais am na si am na si ñoo xamante ni leer na ma leer yàlla ñu yegg seen reçu yoo xamante dañoo fay courant mi ngi nii. te neewoon nañu centre commercial bi du fay courant loolu yëpp déggoon déggoon déggoon nañ ko fi waaw. ñun daal dañuy leeral lépp lépp loo xamante ni aussi fekk nañ ko centre commercial bi balaa ñu naa ñi nga xamanteni ne dañu yobbu centre commercial dañu fay loubal waaw gis nañu ne aussi ay reçu de caution non identiques à celui du trésor mu ngi nii reçu bi reçu bi nga ne bi ngeen gis gis ngeen ko nii. reçu trésor la. waaw ah ñoom si lu ñu nañ reçu trésor la ñun xamuñu nag nu mu demee est-ce que reçu trésor na mel nii lii moo ñu 000, 100000 80000 voire 100000 francs aussi 000 voire 100 000 francs koy fay comme caution.

waaw loolu moom wax dëgg yàlla c'est à déplorer en tant que euh, en tant que euh, agent municipal wax dëgg yàlla lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñaawlu la bu ñu gis nañu absence totale de marketing et commercial ce centre commercial bi aussi loo xamante ni ñun ñoo def parce que foog naa ni waa rajo Raay bi FM sax mën nañoo seede ba ñu centre commercial bi fa la ñu njëkk a def sport yëkkati benn somme yëkkati benn somme jox leen ñu defal ñu spot pour li nga xamante ni mooy marketing ak commercial centre commercial bi doxut. vidéo yaa ngi fi audio yaa ngi fi ku si bëgg aussi lu la leer si koo ñëw si agent yu nekk si marché centre commercial bi lañ ko jox mu leer lépp dafa war a leer te lépp nañ ko leeral tey jii lépp loo xamante ni wax nañ ko fi. ku ñëw bëgg leer nañ la ko woon si dernier point bi nga xamante ne man fa laay daanalee ba ñu ñëw centre commercial bi ñëpp gis nañu insalubrité bu fi nekkoon insalubrité notoire boo xamante non commerçant yi sax dañu ko doon déplorer mais après équipe ñun ñi nga xamante ay ndaw lañ dañ koo defoon volontairement kenn jàppale wuñu si am na sax ñaar ñi ay ndaw waay lañ mais non non du question ndaw waay nit pour man boo nekkee sa gox danga nga war a liggéey pour sa gox si lañ jóg dama uti ay peel ay râteau ak ay bale bale centre commerciale ba mu set wecc parce que maire amul woon budget boo xamante ni wala fond boo xamante ni dafay jël ay nit ne leen eh bale centre commercial ma fay leen bu ko defoon nag dafa jël xaalisam def ko si motax ñun ñu juk en tant que dom commune bi bëgg commune bi jëm kanam motax ñu juk dem centre commercial ba balé ko bam set waaw en grosso modo c'était ça comme léral mais aussi desna lo xamanteni aussi dañ ko wara gëna leralat damay jox sama natango rek ñom ñu ñëwaat ci ak nu mu gëna léré rek pour njëriñu askan bi assalamu alaykum assalamu alaykum askan ginaaw ray man la cheikh omar foutiou mbeng dekk ginaaw ray nek agent municipal au niveau de la commune de Guinaraï Nord nek aussi régisseur au niveau du centre commercial qui se trouve à Guinaraï Nord waaw sama collègue bi ñëw na légui ci rapport trouvé moy la lañ fa fekk ñun nak liggéey pendant six mois ku liggéey 6 mois war nga un rapport donte rapport annuel la mais situation moko laaj parce que nous gis suñu ben agent ko xam agent municipal la comme ñun gën def sortie. te sotti aussi taxal nañu si moo tax ñëwoon pour leeral rek puisque doomu ginaaraay lan te pour ak alalu ginaaraay la ñu dénk am na yoo xam te il faut ñu leeral ko mu leer voilà si fi ñu toll actuellement si centre commercial bi ñoo gis ay am nañ fa 321 cantines ñoo fa nekk si 321 yi 316 cantines ñoo fa fonctionnel maanaam ñoom lañ luye te ñoom ñooy fay trois cantines non fonctionnelles dañoo dañoo dañoo fonctionnel boo ko déggee mooy cantines yoo xam dañ ko occupé te ñi koy occupé ba tey liggéeyaguñ si ba ñu ko tëjoon comme dépôt dañ leen tëjoon comme dépôt léegi ñi woo bind leen ay mise en demeure pour ñu libérer espace parce que dañ dépôt la woon trois cantines yooyu ba tey mi ngi fa doxagul 21 la woon mais dañ ko fexe ba la ñu 18 mu dess 3 3 yoy mo nekk mu nekk 3 non fonctionnel am na deux cantines yo xam dafa vide moy yu vide mooy kenn luyeegu ko ci cantines yoy 10 cantines yi nga xamoon ni nga xam dañ ko récupérer moy sama collègue bi mu doon lim léegi moy 10 cantines yo xam dañu amone ay faveur kon ni ma ko doon léemee li récupéré nañ ko parce que maa ngi dégg sax si benn communiqué ñu naan maire nee na na ay cantines ATT mais bu déggee ñu récupéré nañ ay cantines parce que 10 cantines yooyu lañ récupéré parce que di cantines yoon ñu bët ñee dañ ko jàppee ay nekkoon comme titre nekk ñu leen luwee ñu koy suulee xaalis bi daawul dem si commune Gunaw Rail moo tax ñu jàppoon ay ATT la comme les 71 alors que 10 cantines 10 cantines yu bokk si 321 la mais nekkul woon si registre yi agent recouvrement yi ak agent yi centre commercial ñoo doon dox sur le terrain ba retrouver ko turim turim turim ko tudd mais ku su bëgg leera aussi bo ñu jox lako pour le moment parmi yoon am na 18 cant 20 cant 21 cant ñi nekkoon dépôt récupéré nañ 18 yi légui 18 biñ ko récupéré yëpp jël nañ ko joxé waat nañ ko ay ndaw yo xamanté dañ doon demande pour am place centre commercial jox nañ leen ko ñu joxé seen i reçu caution yu leer parce que actuellement ñu ngi fa trouver 71 cantines 71 cantines yooyu sama collègue ni nga koy waxe sank daay ñu fay OVP ñu ci ëpp OVP moy juri bu ñuy fay fexé nañ ba waxtaan ak ñom si njëkk ak teraanga ñi ngi fay OVP moy chaque weer 3000 francs lay doon par personne légui actuellement lool amna fa centre commercial bi. légui à ce jour comme ñi ngi fay ñëw ñun buñ ñu defoon suñu rapport pare bi ñu fa ah li fa trouver ñu fa gisoon 290 cantines yo xam te ñoo fa nekkoon fonctionnel légui buñu récupérer 10 yi ak 21 dépôts ñu récupérer ci 18 mu au nombre de 10 plus 18 mu nek au nombre de 28 cantines yoo xamante récupérer récupéré nañ ko yo xamante sen somme wala li ñu fay weer daawul dem ci commune Guinaw Rail loolu mi ngi léegi instant yi moomeelu Guinaw Rail nag Guinaw Rail naar moo 10 cantines ak 18 yi fa nekkoon comme ay dépôt voilà léegi actuellement mi ngi toll centre commercial instant yi mi ngi toll ci 321 comme ni ma ko waxoon mais 316 cantines ñom fonctionnel léegi ñu yeggali rek discantine comme nous avons dit, waxoon bu fekk 18 mu 21 ak mu 28 euh, euh, cantines yoo xam te dox fonctionnel cependant comme nous avons dit, parce que nous avons ñu une évolution versement effectivement am parce que bu vous na nga 290 cantines nous doon versé trésor nga fexe ba instant yi nii am 316 cantines versé rapport 290 ak 316 somme bi mooy que 316 la Moi, tax ñu y somme bi augmente augmentation amna forcément dina am parce que 21 cantines yooyu ñëpp ñee dañuy fay comme li seen morom mi di fay te en même temps 28 18 yi récupéré 21 dépôts ñom ñoom ñëpp joxe caution te chaque fin de mois dañuy fay léegi amna 28 21 cantines de plus yoo xam te ñëw nañ ci ce qui fait lool moy augmenter potentiel versement au niveau du trésor mo tax bo ndégué ñu ni versement bi augmenter na waaw lool moko waral ba tey desaan na cantine si bëri ñu fay OVP manam juuti yi ndan deg parfaitement par ñing kay mois léegi ñu ngi koy fay léegi juuti yooyu bu ñu dugg ak 21 cantine ak 28 cantine yoo xam ndaw ne daaw ci registre daaw ñu fay naan maal normalement ku ko dégg xam ne évolution mun na am foofu lan tek suñu évolution xam évolution versement amna les preuves sont là parce que fu ñuy liggé yoon may ñu génn en tant que agent municipal di génnee recette li ñuy verser mais les preuves sont là le DAF est là

chaque annuellement da nga def rapport fekkee ak ginnaaw raay moo la ñëw nga def rapport comme ça commune ginnaaw raay askan mi xam fan lañ le centre commercial mais mosoo ko def pendant bàyyi ba 4 ans ben jour rek nga taf taf bëgg ko def y a quelque chose c'est quelque chose on le sait voilà. léegi benen bi muy tu te koy joxe éclaircissement aussi da ngay jox éclaircissement yi palpable yoo xam te ni kenn dul si jàmm parce que mënoo ñëw ne yaa ngi verser 4 millions 5 millions 6 millions te préciser le nombre de cantines yi ngay verser te cantine qui bi ñuy 321 cantines il était fonctionnel Ta cantine si tu da ngay joxe balaa caution 100 000 francs à 80 000 francs chaque fin du mois au moment 2018 fin du mois c'était de 30 000 à 40 000 alors que moi, je ngi joxe somme ah. caution 100 000 à 80 000 je l'ai dit. gis nga loolu bu ñu ko defoon bu ñu que xayma woon fekkoon cantine yëpp ñi ngi caution ak fin de mois somme bii mi fi tudd je mi fi tudd bi je biraa lay tudd waroon dem. boo joxee leer da nga jox bu fekkee joxe ne dañuy verser 5 millions waroon nga sur nombre de cantines nombre de cantines ñoo joxe nangam nombre de cantines ñoo joxe nangam recevoir na nombre de caution de 100000 ou de 80000 mais mënoo ñëw ne dañuy verser 150000 wala 5 millions wala 6 millions te waxoo si ñaata cantine la kon leerali des na waaw. beneen aussi aussi ñëwaat kon euh, di leen jox leeral rek comme li ma wax la su fekkoon yëpp looy noonu ko normalement. que son yu ñëw 100000 francs 80000 francs xaalis bi ki nga xamante ni Bira déclaré na ko waroon na ëpp loolu fuuf beneen bi ñëwaat aussi en tant que agent municipal aussi c'est pas à lui Bira Leye DG de défendre les ATT parce que ATT bu ñu ñëwee mooy li nga xam da leen attribuer cantine booy défendre da ngay défendre ni si loo xamante ne leer parce que monsieur le maire bu mu ñëwee daf leen daf leen defal leen ma recensement ñi fa am ay ATT man en tant que Cheikh Omar régisseur ak samay agent de recouvrement ñu sur le terrain parce que muy faté bu ñu ñëwee gisuñu fa benn document bo xamanté mo nako top dañ do wàcc chaque jour sur le terrain pour découvrir les 71 découvrir ñan ñoko mom moom seen identité ak fa lan dëkk ak seen contact ça nous ça nous a permis de jël nañ ay temps voire ay semaines sax pour découvrir loolu C'est le mujjee am liste 71 cantines yi ATT yi ñoo ko liste baa ni 71 cantines beneen ñoom am nañ seen numéro téléphone ak seeni i loolu weesoo di ñëwaat 71 cantines bi ñu ko jébbalee ki ñu ko liggéeyloo muy maire mu laaj leen ñooñu benn lettre bu tudd bu tudd lettre attribution puisque ñoom dañoo jàpp cantine ay lettre la maire laaj leen lettre attribution yi ñu si bëri penee nan a joxe ko moo tax affaire bi tardé woon lettre attribution yi leen ci bind ma liiral leen ko rek nous sii signons commune de Guinaw Rail noor présenté par monsieur le maire Pape Nyambadien atteste avoir attribué le numéro de cantine numéro X d'une dimension de X à siège du centre commercial de Guinaray Nord à monsieur X titulaire d'une cantine d'identité numéro X délivrée à Dakar le 2 6 mois 2006 les NB il est strictement interdit d'apporter des modifications quelconques sans autorisation écrite au propriétaire. Ainsi, cette attestation lui est délivrée et valoir ce que le droit. Fait à Gunaray Nord le 9 février 2018 en trois exemplaires. maire moo demande demandé woon leen signé par le maire Pa Mini, Dieng mi ngi lettre lettre attribution maire moo leen ko demandé woon commerçant yi veut indil ko ko. mais bi ñu ko indilaatee lii ma ne ba tey doy ko comme preuve toujours ceci a été. demandé demande leen benn lettre bo xamne daf koy dem mu lettre demande de quittance puisque da ngeen da ngoo jënd bo jëndé dina la war ne ba sax portable boko jëndé jëndee la ah an sa keuy bi war da nga jënd mer laaj leen loolu parce que at lettre attribution ça n'a rien à voir avec jënd acte de vente dara attribution la attribution mom ñep déggé nañ ko du vente maire demande leen li lettre de quittance trésor ñu indi ko ko si observer maire li la si bind présentation di quittance du trésor public monsieur et madame vous êtes tenu de présenter une quittance du trésor public qui vous donne le droit d'acquérir une cantine au niveau du centre commercial de et Nord. Dans le cadre d'un bon fonctionnement de la comptabilité du centre commercial, vous devez présenter sous huitaine une quittance de paiement d'attribution de votre cantine au niveau du secrétaire municipal. Espérant une meilleure compréhension de votre part, je vous prie d'agréer nos remerciements meilleurs. lettre pour une quittance trésor. signé par le maire aussi monsieur le maire Waly Ndiaye ñaar yooyu muy ñaar léegi ñu avancé waat signé par le maire ñaar waaw dañ leen di présenté waat rek que ñu bëri xamuñu quittance trésor ni muy mel quittance trésor nii lay mel parce que maire bu mu defee loolu am na si commerçant yoo xamante ni ah am na si ñoo xamante ni indi na seen quittance cinq personnes yoo xam indi nañ seen quittance leen démené mais le problème mais il y a un réseau commerçant qui se trouve au niveau du centre commercial qui ne veulent pas donner leur quittance de trésor ñoom bëgguñu joxe seen quittance trésor mais wallaay da ngaa jënd jëndoo indil papier yoo xam ne war na jënd loolu yomb na c'est facile jàpp nañ ñi indi seen quittance trésor ñoom ñi ngi si yoon pour le moment xaw ma ban façon loon ko amee nag soit attribution la boo xam dafa am pas délibération parce que ñi ngi dégg déjà di ko wax xamuñu loolu c'est à maire de le suivre su fekkee am délibération bi wane woon ni ordonné leen pour nañ jaay place ay centre commercial aussi ñun suñu liggéey yamagul fof bu yeggee fof ñi ko wara def dana ko def mais leeral li ñuy indi rek moy li ñu xamante ni santoon na ñu liggéey liggéey ji fii la toll. wa en grosso modo dal en tant que fils de Guinaw Ray agent municipal nous interpellons monsieur le maire Valdiodio Ndiaye les adjoints en particulier adjoint bi nga xamante ne moom commission hall et marché en même temps les conseillers municipaux en même temps aussi. la commission commission bi nga xamante ne moo géré heure et marché donte suñu am na suñuy frère yu fa nekk frère du jàmbaar mais yéen yéen a mën a wala instant yii nii askanu ginnaaw raay parce que lii moomeelu ginnaaw raay la ñun en tant que agent dañuy xeex ba fu ñu xeex dañuy def loo xamante ne suñu gënt laay kàttan ba li gënte lépp loo xamante ni mën nañ ko am mais flo gis ko gis nit ko xam liggéeyam nit ko gis liggéeyam da am fu muy yam leen nak conseil municipal ñoo ko war a parce que li alalu ginaaw raay te conseil municipal da leen fee tek pour ñu défendre intérêt ginaaw raay man maa lay ñaan ñu travaille en parfaite collaboration avec le maire pour affaire yi ni ñu léral ko 71 cantine yi bu fekkee suñu momel la bu ñu jël ñu jëlat ko ginaaw raay ñëpp jëriñoo si parce que nekul momel ben nit wala ñaari nit ñoo ngi jégal ci cadre yi. Salam askanu ginnaaw raay ray nord ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay euh, di leen fàttali tour bi c'est Cheikh Mbacké Niang c'est bon c'est bon di leen fàttali tour bi c'est Cheikh Mbacké Niang voilà nekk aussi agent municipal nekk à la fois aussi euh, chargé de com euh, commercial et marketing du centre commercial ginnaaw ray nord. waaw xanaa dañuy dikk rek ci ay réorientation ak explication par rapport ak li nga xam ne nii moom mooy tënk yi fi euh, sama natango yi def jëmale ko si liggéey bi nga xam ne nii moom lañ am waaye tamit su sooxee sooxee ko ci euh, coow li nga xam ne jot na fi am ci ab leeral boo xam ne nii si ku ñu jiite génne na ko di di ko di ko di ko def di ko def jëmale ko ci centre commercial bi waaye rek di ñu tàmbali fudul si 290 cantines yi nga xam ne nii nii ñun moom lañu gis te pourtant ñun bi ñuy doog a yegg fii ci liggéey bi daanaka li ñu déclaré moom mooy 321 cantines alors que 321 cantines boo xoolee ute nag 290 cantines ndaxte bu fekkee ni maanaam recherche yi nga xam ne jot nañ ko def muy 21 dépôts yi nga xam ne nii gis nañ ko 21 dépôts bu ñu ko boole woon ci 321 cantines ñaata lay doon nga day nekk kon 311 euh, cantines nga jël discount in faveur yi nga xam ni jox nañ ko ñeneen yi nga xam ñom lañ gëna a manam jox nañ légui tout à l'heure dossier bi won nañ leen ko won nañ leen ci lu wéré bari moy bi muy 10 personnes yi nga xam ni ñom lañ jël comme def leen des faveurs kon day daari nek nekk 321 kon 31 cantine yoy no xam ni ñom jëlon nañ ko ñom ci seen poste doon dem 30 ans cantine yo nga xam ni peut-être ñom ñi ngi yaakaar ñi ngi wax ñi ngi wax ni manam dañ fi nek ngir ginnaaw raay c'est faux nekku ñu fi ngir ginnaaw raay dañ fi nek ngir seen bop dañ fi nekkal ngir seen poche alors que ni lolu taxu leen fi won tok deug na yalla donc bu fekkee ni tamit da nga jité bo jité da nga jité ci li nga xamni ni mom mo ji deug ah deug neexul ku jité da ngay wax ci deug carrément bu ko defee nit ñi dinañ xamni kat ki ni limi tek tek nako ci yoon limi waxit li ngi liggé té nit jiitalu ko nit waxloowu ko ci li nga xamni ni mom mo nekk ci liggéeyam parce que nit ñi am confiance yow mom mo tax ñu jox la lool nga mën ci liggéey buñ jógee ci lool comme euh, liñ waxon tout à l'heure récit fictif am fi parce que bu ñu nee reçu fictif mooy reçu yi nga xam ne nii indi woon ko fi tout en résumé ba tey rek loolu du yoon parce que bu fekkee ne dañu teg quittance trésorier ñu ne quittance trésorier li muy jariñ mooy maanaam justifier que ni kat yow mi fay nga sa xaalis te su boobaa ñun commune bi amuñu si dara lépp day daal di dem directement trésor bokkul ak reçu fictif bi nga xam ne nii maanaam jox nga sa xaalis ñu jël xaalis boobu noonu bind ko ci reçu bi bàyyi la nga dem ñu dagg ab kit kayit jox la ko amaana sa kayit boobu doo xam ne muy demee ñoom ñu jël xaalis bi defaat ci seen biir poche kon ça si dara amuñu si dara loo nii maanaam maanaam dafa doon jóge si ñoom ñëw li si ñun kon loolu tamit c'est archi bàyyi xel bu baax baax Euh, amnañu tamit benn déclaration boo xam ne defoon nañ ko si euh, leeral bi nga xam ne jot am muy 47 millions 400. ci li ci wax moom mooy que ni mois de mars lañ ko fayeeku mois de mars 2018 alors que ñoom tijji nañ février 2018 donc caution yi nga xam ne ni encaissé nañ ko ci mois de mars bi ci mois de février bi ak mois de mars bi peut-être wala ci année 2018 fa lañ ko dugal préciser wuñ ko fenn amul benn précision boo xam def nañ ko te bu ñu xoolee caution yi niveau bi mu tolloon ñoom ci seen ay jamono ñenn ñi sax gis nañ ko fi gis nañ fi caution 100000 francs gis nañ fi ko ci ci reçu ci reçu fictif bi benn nekku ci quittance trésorier ci reçu fictif bi lañ ko gis est-ce que loolu tamit dañuy laajte ndax yoon la waaw wala déet ku ñu si mën a dimbale ñu nga nga daal si ñëw bu baax a baax. Euh, tamit di dikkaat ci wàllum 70 cantines 671 cantines yi nga xam ne nii ñoom ñi ngi wër. ni kat kat dafa am ño xam dañuy wër di wax ni 71 cantine yi récupéré nañ leen ba mu jaral leen ñuy tak di tak manto dal di non par la force lolu mënuñu ci dara kenn du ko récupérer parce que ñi dañoo am seen ay kayit yu lèr ñu léral bu baaxa baax ni néwuñu kenn que récupéré nañu 71 cantine manam cantine attributaire yi demuñu si benn cantine attributaire ni dañ koy récupérer donc lolu c'est archi donc la ñi di bàyyi xel que ni kat 10 cantine yi nga xam ni nii lañ jëlone def ko faveur manam kenn du ko fayeku te ñen ñi même ñoko don fayeku diko def ci seen poche carrément 10 cantine yooyu lañu récupérer récupéré ans yi nga xamni ne nii moom lañ def ko dépôt mom lañu jël jëm jël ci yenn récupérer ko yeneen yi ba tey mënuñoo fexe ba kii si daanaka ñi ngi nekk ci procédure ci si liggéey donc nañuy bàyyi xel que ni kat amul benn cantine attributaire bo xamni ñun né nañu fenn que récupérer nañ ko mais nak ñi ngi ci procédure voilà bu ñu dikkee am nañu 47 147 étal 147 étal bu fekkee étal bu nekk da nga jaay à 60000 francs il à à peu près parce que nous 60 000 francs la am 50 000 francs nous faut 10 000 francs faut dafa jëm ci commission donc c'est à 60 000 francs imaginez vous faites 147 états, 60 000 francs vous avez 8 820 000 francs CFA 8 millions 820 000 francs CFA est 8 millions L'heure leeraluñ nous amul fenn nous centre commercial bi attributaire 321 cantines donc 8 millions 320 mille francs Nous fait wax fan lañ ko temps. am nañ ci cantines de nga xam ne ñoo cantines Nous 15 mille francs à l'époque si ay jamono cantines amul kenn fait xam ne caution par exemple nous nañ 55 75 cantines yu mag nous ñoo à peu près à peu près lañ def ñun ñu jël 50 cantines parce que xam nañ ni période bobu nous mën nañoo bañ a joxe cantine yëpp c'est raisonnable mais nous jël 50 cantines 50 cantines cantine bu nek nga fay 80 000 francs caution 50 cantines bu nek nga wara fay 80 000 francs caution daf lay diké 4 millions de francs CFA 4 millions de francs CFA yoy non fan lañ ko dugal est-ce que wax nañ ñu ko waaw wala déet loolu aussi bu ñu si mënee dimbali ñu dimbali ñu si ba tey ci seen sortie bi nga xam ne yéen def ngeen ko maanaam génn ngeen bilan wu peut-être li nga xam ne rapport yi nga xam ne liggéey ngeen ko ci 2018 à 2022 amuñu ci jëmale ko ci euh, caution yi ba tey ñu dikkaat ba tey ci caution yi euh, am na 255 cantines yoo xam ne desaat na mooy cantines yu mag a mag yi cantines yu mag yooyu noonu euh, ñu jël si à peu près encore 200 cantines 200 cantines yooyu noonu caution bu nek nga wara a joxe 100000 francs léegi 200 euh, fois 100 daf lay diké 20 millions de francs CFA 20 millions de francs CFA yooyu ana sen caution fa lañ ko bind ak fa lañ ko dugal ak lan moy justifier que ni 20 millions de francs CFA yoy dugal nañ ko fi buñu jëlé jëlee yi ak cantines yu ndaw yi ak cantines yu magi lepp lepp le total daf lay diké 32 millions 832 000 de francs CFA. ci caution ci wàllum caution 32 millions 832 000 francs CFA ci caution fa lañ ko dugal ndax wax nañ ko fenn ndax ko fenn waaw wala aussi nañ ci am mais tamit di waxaat rek ci enclos dañuy rek waaw di wax ni erreur bu mag dafa si parce que bu commerce di wax commerce centre commercial wax peut-être marketing communication et commercial de loolu c'est une obligation ci donc pendant quatre ans marché bi mënoo ko utal tur c'est normal waaw wala déet maa ngi déglu la population c'est euh, de Guinaw Rail ñu tontu ma ci loolu noonu benn ñaar marché bi musul am agent commercial ñett marché bi musul am agent marketing ñeent marché bi musul am agent secrétaire musul am agent de communication etc. etc. etc. cetera et cetera et cetera kon liggéey bi ñan ak ñan la woon. ki nga xam ne nii moom fi nekkoon peut-être régisseur ak ki nga xam ne peut-être moo fi nekkoon moom la ñuy wax soi-disant directeur d'accord ak ki nga xam ne peut-être mi ngi nekk ci biir marché bi doon encaisser ay peut-être ay ay ay euh, caution di la dawloo parce que loolu ñun gis nañ ko xam nañ ko fekk toog nañ nit ñëw wax ñu encaisser caution di la dawloo ay weeri weeri weer ba nga découragé ñun ñi am nañ ci cas amaat ci cas amaat ci cas dañoo dem ba dernier moment lañ commencé rek bu ñu coow jib ñu réglé mais nag comme ñoom ñoo toog wax ñun aussi dañuy toog wax donc marché bi kon ça veut dire que ñetti nit ñoo ci nekkoon di liggéey xool leen ñu fi toog te am na ñeneen ñoo xam ne dañoo absenté ñëwuñu donc liguey du ndukhum liguey du naaféq te liguey du wax wax num la nexé wala ngay doxale nim la nexé donc lañ jël lepp rek di ko tek ko si yoon na lepp rafet mu jaar yoon ok ñi ñi ngi kuroo débat merci beaucoup